dal di ne maam biram waaj nee na jamono yi mi ngi ay tolof tolof li mekk moo ay xoxotal yoo xam ne mi ngi koy jot ay message yu doy waar xamuñu nag ñu koy def waaye nag daañu leen toppal boobe actualité seen bu mag bi la di xalaat TV ngeen suivre ko fii ci doomu Sénégal muy jox ay actualité ak ay xew-xew yu am solo moo ñu yëgal actualité bu ni mel di ñu wax ne kat maam Biram waa jamono ji mi ngi dund ay tolof tolof yëgaguñu nag ba